mbër gàlle yaay yaay mbër gàlle yaay yaay su guddee fooy yaay mbër gàlle yaay mbër fanaan bismillah bismillah inna waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatulah seen doomu day organe bu yéenekaay mu ñëw indi leen suñu lamb samedi 29 janvier 2022 nii la demee Balla Gaye 2 mooy gaynde boo xamante ne tiitaratul kenn de kenn ragalatu ko moom nag Tapha Tine moomee la géant di wax na ci moom Jax Wrestling Production day ñëw ca mbapat de dimanche bii jëm gros titres yi noonu la demee troisième passe ñu dem fenêtre yi comme suñu lam nu mu ko defee saa su ne bombardier ñu ne nag face to face bi tey jii lee de ci 2STV moom jamaïcain moomee gannaaw nag ba mu tojee arène nationale yëngal Ibomar ñu ne nag day ñëw de le 20 mars lay ñëw de diggante ki nga xamante ne moo di fils de Balla Boy ko dul kan moom góor a bu jàmbaaroo signe académie moom jax si nag day ñëw de le 13 février lay ñëw nag aha kañ derbi la indi Cobra 2 Laye Doki ak ki nga xam moo de Kati kooku le 20 février la de moom Fallou Ndiaye moo ñu woo ci combat boobee ca Iba la dëgg de Alice yi suñu lam ne xam ne nag ne ñoom ñaar ñooy seen ànd nag exemple la de pour mbëri exemple ndax ñoom ñaar ñooñu nag kenn ku si nag gëm sa morom bu baax a baax a baax a baax a baax ban adversaire la ñuy jox ki nga xamante ne moo ah, ba mu demee États-Unis nag ñu si waat nag ci de bi ñu jëm la xew-xew amatina lu xewati ñun wax làmb ñoo xewle ñun reporter yi ñoo xewle ñun caméraman yi ñoo xewle ah kañ ah kañ moom mooy takk soxna nag nag le 5 février lay doon nag waaw la wax lii bu loola war nag suñu làmb ne nag bés boobee ah du yomb de du yomb du yomb du yomb ndax kat axlu làmb ñoo xewle moom Lamine Seck bu Lutte TV moomee mooy takk li nga xam moo di soxna ba tey triomphe ñorem la dëgër de bombardier suñu lamb ñu xamal ne ñaari adversaire yoo nag ñoo taxaw de ci ki nga ne moo tofaatin la géant du Baol aha kañ revanche la nag bu tegu ci bi revanche la bu tegu ci bi de bu dee moom la dëgër de moom nag 15 ans nag ba mu daanee kii tofaatin nag lamb nag boole waat na leen kon revanche boobu taxaw na bu dee moom Bombardier moomee nag dix ans gannaaw ba ko tafatin daanee nag ba léegi nag revanche bu taxawaat na loola war nag suñu lamb nag moom tafatin moomee nag ñaari adversaire ñoo taxaw ci kanam ne ñaari revanche ñoo taxaw ci kanam moom ku ci mënti jël rek revanche la moom tafatin moomee le géant du Baol mi ngi dix neuf combats quatorze victoires cinq défaites cinquième pas ñu dem Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye moom Balla Gaye 2 moom le fils de Double Less suñu lam moo moomee nag gaynde la boo xamante dara dara dara ba pare nag Issa Pouye laaj Issa Pouye mu laaj neen nag na ñëw ñu leeral gannaaw ñoom ñaar kenn ku nekk da daan sa benn kon moom la Issa Pouye la Kayma de Thiaroye mi ngay laaj ci nga xam le fils de Double Less dimanche bii ñu jëm ca Iba Mar moom sëñ Modou Niang moo ñu fa woo ah kañ le promoteur de la décentralisation bébé Jackson ak ki nga xamante ne tubaabu joor junior sixième pas ñu tas yaakaar bu écrit xam sa cosaan moom tas yaakaar moomee di champion di ndaanaan nag suñu laam li nga xamal ne poids lourd la de waaye poids lourd bu mën a bëri la nekk ndaanaan nekk champion bu mag a mag moom tas yaakaar moomee nag di wane boppam ci boppam bi moom tas yaakaar moomee di wane boppam ci làmb ji loola war nag nag gannaaw nag ci li mu jugee suñu làmb tas yaakaar moom la fils de général bu double moteur septième pas ñu dem dama naan sarax ca mbapat ba ah kañ dimanche bii ñu jëm moom Jax Rex si moo ñu woore ca Adrien Senghor suñu làmb di ñu xamal ne un million lañ teg ci table de dina yëngu yëngu waaye nag feneen fii yëngu mooy ca Ndangaan Sàmm le vingt neuf ba trente ah quinze nag lañ teg li nga xam moo table bi su ma nee sarax ca huitième pas suñu làmb da fay fekk kan moom ni nga ko nanka ca affiche ah kañ jalgati ni nga ko defee saa tey kenn moo fa nekk moom Ama Baldé sël bu ndaw ak kañ doomu Pikine moo fa nekk moom Ama mooy wax de nee na acca acca ma nga yor saret ba de yore xiir ba nag di caw ma ngay dem fan la jëm ca parcelle moom Ama Baldé mooy wax nee acca acca ali ñu dem parcelle ma jëli couronne bi waa Pikine ñoo ma yónni ma te Modou Lo dina xam ne sël bi na fu mu nekk dama jël couronne bi soo indil ko waa Pikine yéen a papa prong yéen a tey maa ngi may Issa Gueye borom mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy yaay mbërgale yaay fanaan